salaamaaleykum mbokk internet Sunugal 24 point net mbégteeg bànneex tey lañ am di daal seen gan seen gan kenn doolul ko présenté ci kër gi mooy Cheikh Omar Thiam borom Ijaaba Cheikh bi balaa ñuy dugg si laaj beeg tam dañ lay bàyyi nga nuyoog askan bi lay suivre Sunugal 24 Cheikh bi salaamaaleykum. waaleykum salaam wa mbokk yi. ñu ngi leen di nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu tout le monde di leen ziarat di leen wax ne bisimilah ci dalal bi nga xamante ni dalal ngeen ñu ko. Hmm. alhamdulilah bisimilah. Cheikh bi jërëjëf nuyoo am na solo mais Cheikh bi balaa ma jugul si laaj beeg tam damay laaj lu waral borom ijaaba. waaw auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli kon Cheikh Omar Thiam borom ijaaba lu ko waral loolu maama moo ko tuddee. Mhm. waaw maama moo ko tuddee ndax euh, mën a ñaanam moo tax maamam tuddee ko borom ijaaba. waaw ndax képp koo xamante ni ñaanal nañ la rek lépp luñ la ñaanal da koy gis si saasa. Mhm, mhm. waaw loolu moo indi Omar Thiam borom ijaaba. dëgg la waaw. jërëjëf Cheikh bi loolu am na solo loolu bu ñu dugg si laaj beeg tontu bi mooy wàllum listixaar ak ñaan loolu dañ ciy dox bu baax a baax. waaw dañ ciy dox ñaan yàlla dañ ciy dox. waaw ndax euh, wàllu listixaar yàlla may ñu secret bu wér boo xamante ni képp koo xamante ni incha allah listixaar nañ la dañ gis sa mbir dañ la wax ba wax la loo xamante ni ñëwagul si yow hmm. waaw dañ wax nit lu passé si moom dañ wax nit lu teew si moom dañ wax nit loo xamante ni ñëwagul ci moom hmm. loolu yàlla may nañu ko ndax listixaar baatu arab la hmm. listixaar mooy seet waaw wolof mooy wax seet arab mooy wax listixaar waaye lépp benn bi la ñun dañuy seet si kurus dañuy seet ci euh, suuf mooy ramlu dañ ciy seet dañuy mm-hmm. seet ci alquran. Mm-hmm. dañuy seet ci ndox. waaw képp koo xamante ni seetal nañ la si yii. Mm-hmm. incha allah dañ la wax ba wax la loo xamante ni ñëwagul si yow. waaw jërëjëf sëñ ma laaj la xam-xam bu gaaw moom. xam-xam ciy yëngatu waaw wàllu xam bu gaaw loolu dañ ci yëngatu. ndax xam na secret boo xamante ni incha bu buñ ko defee jox la ko nga sangoo ko. juróom-ñaari fan. balaay fukk fan ak juróom. incha allah danga gis ne xalal ju bari dana dugg si sa loxo nu mu gën a gaawee waaw ndax loolu ñu ngi koy liggéey te si alxuraan lañ koy liggéeyee mm-hmm. am sunguf yu nga boole jox la ko nga sangoo ko juróom-ñaari fan mm-hmm. balaay mat fukki fan ak juróom mm-hmm. incha allah danga gis ne xalal ju bëri dana dugg si si yow waaw dana dugg si sa loxo te loolu ñu ngi ciy sante yàlla bu baax ñu ngi ciy jëflante ay nit ñu nekk bitim réew ba fépp ñu ngi koy jëflante nit ñi te yàlla mu ngi si may ndam wax dëgg yàlla ñu si sant yàlla daal bu baax a a ah wàllum fal ak moom da koy def. bu baax waaw ñun dañuy fal dañuy mm-hmm. folli. Mm-hmm. waaw képp koo xamante ni bëgg na ay mbiram yëkkatiku ba nit ñi xam ko mhm. incha allah bu ñëwee mhm. buñ jëflante ak ñun mhm. incha allah ala kulli xaal nit ñi danañ ko dégg te dana doon koo xamante ni ku siiw lay doon waaw képp ku bëgg a foole nag képp koo xamante ni bëgg nañ mu wàcc incha allah buñ jëflante danañ ko wàccee si nu mu gën a gaawee loolu ñu si sant yàlla bu baax boobu boo leen ko bëggee jot mooy 77 405 ñu dem si wàllu maanaam tële muy feebar bu complexe hmm. a baax tamit tële waaw wàllu tële dañ ciy yëngatu bu baax ndax dañ ciy dimbale jaam hmm. wax dëgg yàlla nit ñi ñu ngi ñu si ñëwal dafa mel ni daal àddina bi daal hmm. wax dëgg yàlla loolu seen feebar la wàllu tële moom wax dëgg yàlla ñu ngi ciy dimbale nit ñi képp koo xamante ni ñëw na jëflante ñun si wàllu tële incha allah dana xam saafara boo xamante ni moom la ñuy bind jox la ko lii nga naan ko lii nga raxasee ko si sa kanam gi mhm. benn yoon nga koy def mu ne mhm. incha bi ñu koy defee rek da ngay gis changement léegi léegi. mais baa du boo xam ne day maanaam da ngay loolu du doon mhm. ñun bu ñu la ko defalee ba jox la ko ba nga jëfandikoo ko. naan lii lii nga raxasee ko sa kanam. mu ne ala kulli moom pare na. waaw lépp day fonctionné incha allah. macha si loolu am na solo may ni ñu dem si wàllum nopp nopp moom tamit dañ ciy dox nopp. waaw wàllu nopp dañ ciy loolu waxoon naa ko waxati ko. Mm. ndax man wàll sama nopp. Mm. du dem ci semaine du dem si mm. trente jours. waaw sama nopp si ñett fan laa ngay liggéey incha allah bu ma xamee sa tur. xam tur ki ngay bëgganteeg wala ki nga bëgg mu ak yow. incha allah su ma ko xamee rek lu may def bu ma ko defee. ñetti fan laa koy liggéey incha allah nga gis résultat bi. jërëjëf koo koy Cheikh Omar Thiam borom Ijaaba. bu ko bëgg am ay bëgg këyit nag këyit moom këyit moom dëkk lool moom nu muy def. waaw wàllu këyit yàlla may nañ si secret bu wér. ndax ñu ngi ciy dimbale jaam yi fu nekk la ñu nit di wooyee dañuy wax ci wàllu këyit. Mm-hmm. wàllu këyit dañ ciy dimbale nit ñi. Mm-hmm. ndax ñu ngi ciy liggéey liggéey boo xamante ni benn càngal la mm-hmm. bu ñuy def jox la ko nga sangoo ko juróom-ñaari fan balaay fukki fan ak juróom insha allah da gis ne kayit gi dugg na si sa waaw loolu ñu si sant yàlla bu fekkee mi ngi bitim réew bëgg foofu ay kayit tamit fépp lépp mhm. incha allah fu mu si mëntu nekk ci réew mi mhm. incha allah bu ñu ko yónnee garab gi ba mu jëfandikoo ko mhm. sangoo ko juróom-ñaari fan balaay fukki fan ak juróom incha allah dana gis ne kayit gi dugg na si loxo waaw loolu garanti la fukki fan ak juróom mooy garanti bi waaw fukki fan yi juróomi xalaa kulli xaali moom du ko weesu waaw kay dugg si loxoom dëgg la sant yàlla bu baax mooy Cheikh Omar moom tamit dañ ciy yëngatu a baax waaw wàllu kaaraange dañ ciy yëngatu mm-hmm. ndax euh, am na kaaraange koo xamante nii wax dëgg yàlla ñu ngi koy liggéey ci alquran mm-hmm, waaw lu demee ni ki 92 wa in yaakaadu mm-hmm. moom la ñuy jël am saar wi sa ñeenti saar yoo xamante nii moom lañ koy booleeg bu ko defee ñu bind 92 ba in yaakaaru dal di ko def saafara danaa xam yuñ ko boolenteeg dal di la ko jox nga sangoo ko mm. képp koo xamante ni laal na la wala muy jéem a dox si sëriñ bi dafa yóbbu sa tur mm. insha allah du xàgg si sa du xàgg si sëriñ bi uh-huh. waaw dafay def soog si yoon bi dee léegi si saasa uh-huh. waaw képp ku jóg dem si sëriñ ngir liggéey la wala ngir yàq la mm-hmm. insha allah du ko nettali ah, kooku yow man xiyaam la ngay nettali waaw dëgg la jërëjëf sant yàlla bu baax loolu am na solo loolu hmm. ñu dem si jigéen ji nga xam ne ndeysaan dafa bëgg borom kër borom kër tëkka loolu baa mu bëgg am doom doom tëkka loolu loolu moom tamit dañ hmm. ni wàllu doom hmm. maanaam doon na sa jafe-jafe insha allah boo ñëwee am na saafara boo xamante ni moom la ñuy bind waaw dana xam rab boo xamante ni moom lañ koy booleek jox la ko nga lekk ko nga togg ko lekk ko insha allah boo ko lekkee yow ak sa jëkkër ala kulli haali foo mëntu jaar moom doom moom di nga ko am. waaw boo ko lekkee moom. Mhm. incha allah ba grand gi jeex. Mhm. allah doom moom di ko am. waaw amul ban waaw jërëjëf Cheikh Omar Thiam borom Ijaaba. sëñ bi defoon nga fi sorti wax ci combat Lac de Guiers ak Boy Niang mais boobu ba léegi boobu loolu yaa ngi ciy dëggal am waaw loolu waxoon nañ ko. Mhm. te ba tey fi ñu taxaw foofu lañu taxawaat ba léegi. waaw combat boobu yàlla wan nañu kuy daan. te xamal nañ ñu kuy daan. waaw. Lac de incha allah dana daan Boy Niang jël bu set wecc uh-huh. loolu lañ waxoon te loolu moo ci nekk waaye Lac de incha allah am na sarax yoo xamante ni war na kay def uh-huh. ci combat boobu noonu uh-huh. waaw Lac de war na kay def incha allah yalla dina ko may ndam waaw ndax ndam li gis nañ ko te ba léegi moom lañ gis waaw te incha allah bu buñ defee sarax yii incha allah yalla dina mbay ndam lu set wecc waaw te dara du ko dindi waaw loolu am na solo sëñ bi mm-hmm. kookooy Cheikh Omar Thiam borom ijaaba cheikh bi xam naa ne waxtu bi dab nañu ma dem te laaju ma maanaam wàllum fay bor wàllum fay bor moom waaw wàllum fay bor yàlla may nañu secret boo xamante ni incha mm-hmm. allah bu ñu ko defee loolu ci xàll wa xànjar lañ koy def mm-hmm. waaw ki nga xamante ni moom lañ yoreel bor daf ñuy jox ki nga xamante ni moo ko yore bor mu jox ñu turam incha allah dana xam xaatim boo xam ne moom la ñuy dagg dugal ko ci xàll wa xànjar gi mhm. dal di ko teg ci furna mhm. wala ci gaz boyal ko ba mu boy mhm. incha allah ñu xam li ñuy wirda suñ ko wirda ala kulli xaalin balaa wirda bi daanu incha allah dana dégg nit ki xoo ko ne ko ñëwal li ma la yoraloon mu ngi nii kaay ma fay la ko waaw ak fu mu mëntu nekk nag mm-hmm, waaw dina ko xoo téléphone ne ko kaay ma fay la li ma la yoral dëgg la xam naa waxtu ñu ngi leen di sant ci seet si bi nga xamante ni moom ngeen ñu seet si ñu ngi leen sant di leen gërëm di ñaan seen liggéey bi yàlla def ci barke di mm-hmm. ñaanal Sénégal yalla def ci jàmm di ñaanal njiitu réew mi yàlla defal ko jàmm defal ko mboolem kilifa diine yi ak kilifa aada yi mm-hmm. yalla defal leen jàmm def ci réew mi jàmm ndax jàmm si la lépp xaj kon yal na defal jàmm ci mboolem jullit mm-hmm. ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu leen nuyu di leen bu baax jërë ngeen jëf